jaa ngeen jëf mbokk yi bàyyi xel Feeling Dakar ñu leen ngi nuyu bu baax di am mbégte ci ànd bi ñun ci suñu ay programme ñu ngi toog ak ki xamante ni su ko daak euh, kenn ci ñun la muy Abdou Khoudia fii ci Feeling Dakar TV nekk koo xamante ni su ko daak euh, xam ngeen ko bu baax a baax ci am solo yi nga xamante ni mu ngi def fii ci kër gi mu fas am yenn révélation yoo xamante ni euh, fas ne ko waxtaan askan bi ci li nga xamante mooy entre Nabou Leye ak ki xamante ni moom mooy Ndella Madior Diouf ñu ñu nuyu ko d'abord ñu salaamaaleykum maa lay siyaar bu baax baax

waaw Daouda maa leen di di la ziar bu baax a baax. Ah, mm-hmm. di la jaajëfal bu baax a baax. Mm-hmm. yow nekk ci liggéey liggéey bu am solo. Mm-hmm. di jaajëfal papa di nga xamante ni moom nga xamante la euh, Abdou Khoudia gannaaw ba la nuyoo la jox yoo xamante ni bëggoon koo wax askan bi. ci li nga xamante moom mooy affaire euh, Nabou Leye euh, ku nga xam ne booba léegi coow li bëri woon mais actuellement daanaka Sénégal yi bëgg nga xam encore quelques rebondissements mais mel na ki nga xamante moom mooy Ndella Madior Diouf nekk moom da koo téye mu mel ne que xaw na déggante ak yow te mu am ay révélation yu am a def nañ ci émission comprendre nga defaat ci émission yu bari nga xamante comme sénégalais lu wax nañu xaar rek yoon def liggéeyam ñun xam rek ba tey ci loolu lañ mën a sikkandiku mais Ndella Madior daf ma woo téléphone. ok mun naa la woon appel yi. waaw barki démb ba léegi mi may woo tey suba rek mi ngi ma doon woo xaaral ma woon yi fan la la wooyee ci ci fi nekk moom. fu mu nekk ci kaso bi pénal ok fi mu nekk la ma woo nee dañoo am benn ñoom dañ leen may benn minute boo xamante ne nii. Mhm. nañ ci mën a jot téléphone. Mhm. donc nag bi ma ko jotee laaj naa ko. Mhm. moom ci boppam ne ndax nga nekkee foofu. mu ne ma maa ngi ci jàmm bu baax a baax. mais lenn moo nekk problème bi Euh, sa téléphone doo ko yor. moom sa téléphone doo ko yor mais da ngay seetaan télé da ngay def lépp. kon moom ba numéro la wooyee numéro moom. numéro personnel ci numéro Tigo la ma wooyee boo xamante ne nii comme ni ma la wax rek. waaw waaw man nag loolu boo boo gisee ma def sorti nii. waaw parce que moom ci jëm boppam. mu nekk ci kaso xalaatul kenn ku dul sama numéro woo ma. sax yoru sax numéro bi. mais bu ma ko jëlee ma waxtaan ak moom ne ko nag nga nekkee foofu mu ne ma mi ngi ci jàmm. Mhm. mais lu ma jot a wax mooy nee nañ euh, téye bi nga ko fa téye. Mhm. dafa yàgg. waaw. noonu nañ ko àttee ñu xool bi ñu koy tëj ñu tëj ko. Mhm. mais téye ko ba pare bàyyi ko foofu. loolu daal laa gis ni loolu la doon lool loolu la ma wax waxoon tamit ne ma aussi papaam dafa feebar. waaw. jot na ma wax loolu. ne papaam dafa feebar. xam nga te nekk ñoom kase ñooñu ñu ko def ak yu demee mais daal en tout moom nee na mi ngi ci jàmm. mais moom ci kawam ko wutee da da mais bi mu la waxee loolu en tant que journaliste sax la ci ci ci lu mu a dem. donc bi ma waxee mooy comme li ma wax ci nagulee rek. Mhm. naam fii bu ñu arrêté mhm. yoon mooy def liggéeyam. Mhm. ba keroog mun a taxaw woo ko. Mm-hmm. comprendre nga bu baax. pour ñu mën ko ne àtte nañ la lii ngay tëdd. Mm-hmm. Euh, lii leen lay amande. dëgg la donc fon mm-hmm. foofu noonu wàllu yoon la. ne man lu ma waxee loolaa dama nag comme demee xam naa peut-être dinañ la dafa fu mu nekk dafa sonn nag. dafa dafa bëgg a jubbi ci ay njabootam. mais loolu moom mënoo dem te. mais Abdou wax nga ko léegi kii euh, kii di. Euh, Ndella Madior nekk ci kaso bi xalaatul kenn ku dul yow ban relation bu particulier nga seqoon ak ki nga xam ne moom mooy Ndella Madior Diouf xanaa émission am ma dem def fa ak moom. Mhm. waaw bu réew musaan toll fii. actualité bu actualité politique bi. waaw na jamono ji dëkk di tar. Mhm. dëkk bi mu tar bu baax. ci mhm. kaaw euh, Ousmane Sonko ñooy presque sotteem mu mujjee def. boo xool man ak moom ñoo ko daan def. peut-être loolu laa jàpp que ni. Euh, dafa jékki-jékki euh, woo ma téléphone. expliqué ma aussi li nga xamante ni moom lay. dugg dafa rafetlu sa sa liggéey daal. waaw waaw waaw may li may kii ci ci camp pénal. naa ne loolu lay ñaan. ñu bàyyi ko mu ñibbi. wala boog ñu àtt ko. ñu koy tëj ñu tëj ko. c'est important parce que ñàkk nekk ci dëgg moom moo tax ñu teg ko fële. dëgg la mhm. aywa moom gisee naa ko Nabou Leye waaw wala déet ndax wax na loolu. dana mu benn yoon te da koo séen. Ah. Mhm. ok waaw da ko séen waxtaan kon ñoom ñaa ko jot ki jot euh, euh, ñoo waxtaan. xamante ci lu ma wax nee na man xaw ma ko sax. mais bu ma déggee comme ñoom dañuy am seen télé di seetaan xool léegi sociaux yi euh, ci la ko seen lool rek la ma ci wax mais wax la toog wax la nu mu gisee Nabou Leye ban état ban état d'esprit lan la Nabou Leye nekkee ci kaso bi wala ban kii mhm. wax loolu jotuma ko laaj loolu nag hmm. jotuma ko laaj loolu quoi mhm. hmm. mais nee na ma seet na ko te moom mi ngi koy xamee ci télé bi waaw comme série yi mu doon def waaw ci série doon def ak ci yooyu ak bi affaire bi amee ok waaw loolu la ma loolu la ma wax. ok mhm. mais moom moom a tant que jigéen aussi. Mhm. Euh, ba mu gisee na bu lay xalaat na ni kii jigéen la am nekkoon ci yoon nekkoon artiste mhm. ñu teg ko ci kaso bi euh, xalaat xalaatoon ni maam xaw koo ñëwante wala daal. loolu jotuñu waxtaan ci loolu nag. waaw mais dama jàpp que ni moom. Euh, daaw la. muy keneen nag muy wàllu keneen meurtre. kuñ ci jiin wala ñu def la suspect. yoon da te téye teg la. yoon da lay téye la ba keroog mu lay àtte. Mm-hmm. man ma man loolu laa ko jàppee daal. ok waaw mais ci waxtaan bi ngeen waxtaan. parce que damay laaj yow la euh, kii euh, Ndella Madior woo. Mm-hmm. wax na la un peu ci ba mu déggee affaire Nabou Leye mm-hmm. ci réseaux sociaux yi moom ni ko doon déggee en tant que jigéen tamit la si yow waxoo wax la si dara. non waxuma ci dara. ok mooy li ma la wax rek tere ma Nabou Leye. seen naa benn yoon. te xaw ma ko woon. Mm-hmm. waaw moom mais mais lu mu doon alerté ci kaawu papaam la wax. waaw waaw. ne papaam dafa feebar. dafa sonn te moom moo ko daan taxawu. waaw ci loolu daal la ma wax xam nga ne nañ ko àtte mu gaaw. comme moom munul munul munul toog foofu. di wax. waaw donc mu ne ma su ma sañoon daal nit ñi àtte ma gaaw parce que fu ma nekk nii. Mhm. Euh, yàgg naa fi. maa ngi ci jàmm nag mais dem ñibbi sama njaboot daf ma ko gënal loolu la wax. moom xanaa am ko nekk ci biti comme tey ji papaam bu feebaree ñoo xam te ñu ko nekk ci biti. Mhm. ñu koy ñu koy defal jàppale ko ci papaam wala. Mhm. loolu nee na xale yi ndaw ñoo xam ñoo nekk ci kër ga. Oh. loolu moom moo tax. peut moom <laughs> daa bëgg génn rek. ok léegi en tant que journaliste ban message ngay ngay ngay def pour ñi nga xamante ñu lay seetaan tey ji nekk ci wàllum yoon. pour ñu buñ gisee vidéo bi ñu mën a xool kii di kaawu euh, kii di Ndella Madior Diouf ñu man ko àtte wala boo no ban message la ci nee Madior Diouf jublu boobu moo tax tey moom moom moom wala waaw moom ci lim ci jublu mooy li ma la wax rek bëgg na mhm. ñu àtte ko waaw parce que moom mënuñu ko nee na essayé na dugal tamit euh, ay avocat am dugal nañ ay liberté provisoire lu bari mais mayuñu ko mooy li ma la wax rek moom mhm. li mu bëgg mooy dafa bëgg a dem ñibbi ci ay njabootam te loolu munoo dem ñibbi sa njaboot te àtte la comprendre nga. message bi may jàllale mooy. Mhm. ñi maytu du fexe di bokk ci yenn yi. waaw parce que nag kaso joomul kenn daaw dawaal yi mhm. mais bëgg naa tey ngay fexe di daw loo xamante ni ëllëg. bu buñ nee diw moo def li duñ ne nañ woo Abdou wala nañ woo Daawda wala nañ woo Papa. dëgg la man message boobu laay jàllale. Mhm. peut-être euh, ku nekk rek bu fekkee euh, jàpp na ci loolu. gën naa ne doo am jafe-jafe yi nga xamante ni. yéen yéen yéen avocat ñoo nekk ci. dossier bi ñoo koy jàppale wala wala wax la ko. non na ma am na ay samay avocat yu dugal liberté provisoire bi mooy ñaari yoon xaw ma ñetti yoon mais nee na nangul euh, mayuñu ko. Mhm. ba tey dañ ne ko mu toog xaar. ok merci beaucoup bu dee am nga message boo jàllale à travers Feeling Dakar TV ñi ci li nga xamante mooy relation yi yi nga fi waxee ci cadre Ndella Madior Diouf ak ki nga xamante moom mooy da ngay laajte quoi mais tey moom da lay da lay laaj. waaw tey dañ may nekk moom moo tax ne xaama génn wax comme moom nee na ma génn wax donc loolu rek moom moo tax mhm. génn naa wax mhm. je pense que dafa nekk message bi nga xamante ni mooy li may wax sànq képp nga xamante yoon daf la woo mhm. nañ bàyyi ba yor àtte la rawatina ci wàllu motu moom dafa war a leer c'est important pour ñu xam daal pour ñu xam daal ok bon maa ngi ñoom am nañu relation du def ay émission mais du tee tamit euh, lii dëgg dañ koy wax dëgg la bëgg nañu sénégalais yi leeral ci kaw Nabou aussi tamit sénégalais yëpp ñu ci doon wax